Euh, di leen baalu àq di leen baalu àq di dellu rekk ci tafsir bi ñu doon def euh, ci waxtu yi mooy tafsir alquran bi ñuy def fii ci mosquée en Kappa euh, ci nekkoon ci suratul baqara nag ci verset 173 fii borom bi subhaanahu wa taala di wax ne innama xarama aleykumul maytat waaw aus billahi min asheytaani rajim yàlla ne innama xarama xamal ne araamal na aleykum ci yéen yàlla araamal na aleykum ci yéen almaytata médd medd mooy loo xam ne dafa dee te rendi ko lépp loo xam ne dafa dee te rendi ko loolu mooy médd te ñu waroon ko rendi lu lépp la ñuy rendi ñu doog ko lekk am na ñoo xam ne suñ ko rendee dañ koy lekk suñ ko rendiwul itam dañ koy lekk am na yoo xam ne dañ koy lekk te rendi ko am na loo xam ne faw ñu rendi ko ñu soog ko lekk loolu la yàlla di wax innama xamal ne aram na araamal araamal na aleykum ci yéen almaytata médd waddama waddama ak deret joo xam ne dafay tis deret ju tis nag mooy deret joo xam ne suñu rendee gàtt wàllu yu mel noonu deret joju di tis leg leg sax moy takal sa yére ki nga xamne moy rendi moy deret jo xamne da fay tis deret jooju nag dafa daganul sobe la wala hamal khinzir yap mbam khukh yoy itam dafa daganul wama ak lo xamne uhil bihi li xeyrillaahi loo xam ne rendi nañ ko biñ koy rendee rendiluñ ko ngir yàlla maanaam rendi wuñ ko ngir ndawalu walla tabaski walla eh, tamxarit walla tudd walla yu mel noonu loolu taxul ñu rendi ko waaye dañ koy rendil xërëm walla dañ koy rendil tuur loolu moo tax mu ne <clears throat> fa man eh, wa ma uhilla bihi li fa man nutura koo xam ne loru na te xayra baaxin loru ga du loru goo xam ne boroom dafa bew xaarijal alal muslimin koo xam ne dafa génn ci jullit yi dem ci defi loo xam ne lu dëppoowul ak lislaam boo lor fekk ko foofu kooku du lekk médd kooku du lekk mbaam xuux dégg nga kooku bokku ci wala aadin du caagin koo xam ne dafa dem di jalgati koo xam ne dafa dem di agressé ba xiif fekk ko foofu kooku itam du lakk lekk medd du lekk <coughs> mbaam xuux te loolu daganul ci moom kon ko ñooñu képp koo xam ne nag loolu taxul mu jóg waaye dafa tukki ci tukki bu dagan mu génn génn bu dagan léegi xiif dal ko ci yoon wa kon fala isma aleyhi kooku fala isma aleyhi <laughs> fi ak lii kon amul bàkkaar ci lekk medd yooyu dégg walla mbaam xuux inna yàlla xafuurun aji jéggalaakoon la xafuurun jéggalaakoon la li awliyaa ci gaayam ya waaye raximu raximun aji yërëm la bi ahli taati ci ñoo nga xam ne dañ ko topp wax jooj jeex yàlla na inna ladina gaa yi nga xam ne yaktumuuna ñu ngi nëbb ma ci la nga xam ne anzalallahu yàlla wàcce na ko minal kitaabi ci téere loolu mooy lan téere yi nga xam ne tawreet wal inji wal linjiil te tur yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala meloom mu ngi ci ñu daldi ko nëbb nag bugguñu mu feeñ wa yastaruuna ñu ngi watti bihi ci loolu samanan njëg qalilan bu néew min ad dunya ci àddina yaaxuzunahu boo xam ne dañ koy jël wulaay <clears throat> ki ñooñu di lekk alal joo xam ne dañuy watti alquran wala watti melo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam maa yaakuluuna lekkuñu fi butunihim ci seen biir yi illa naara ndëri safara ulaayka ñooñu allazina mooy gaa nga xam ne istarawu jënd nañu walla watti nañu addalalata njub bil xudaa ci addalalata réer bil xudaa ci njub dégg wal azaabul wal ak mbugal bi maxfiratin ci njëggal ñu watti mbugal ci njëgal jël njëgal watti ko mbugal fa ma mbir mu màgg muñ loo na leen alannaari ci safara zaaliku loolu ñu tudd mooy lekk gi ñuy lekk loo xam ne daganul lekk mooy watti alquran walla watti hadis moo tax ñu jox leen ko ñu lekk ko zaaliku loolu bi ann bi ann allah yàlla nazala moo wàcce alkitaaba téere bil xaq ci bu muy làmboo dëgg wa inna alladina gaa yi nga xam ne ixtalafu nañu fil kitaabi ci téere bi zaaliki ci loolu wa hum ñoom al yahud yi mooy nasaara yahud yi ak nasaara wa qiila wax nañ al musrikuuna مشركي عربي في القران نيوتي القران حيث قالوا في ني بعضهم لن تي نيوم شعر ني القران بي ويلا وبعضهم نين ني واخنا ني سحر نجبر لا وبعضهم واخنا ني كهانه لبخاب لا نيوني دي لا في شقاق نيغي تي ووتي بعيد بصري عن الحق دغ ان الذين غايغا خامني اختلفوا ووتي نانيو fil kitaabi ci téere la fi siqaqin ñu ngi ci wuute baid bu sore dëgg leysal birru an tuwallu wujuhakum loo def leysal birru ok leysal birru al birru mooy ismu leys hmm? hmm? moo tax birru fii dafa ne leysal birra déedéet daf ko def xabar xabar kaana te te te te bii euh, ismu kaan la laysal birru dafa yàq fii laysal birru lu caagi laysa déet al birru mbaax xam nga birr mooy kullu jaami euh, ismun jaami un li kulli xayr ismun jaami un li kulli xayr su nee birr rek tabe a ngi ci wax lu baax ngi ci def lu baax ngi ci dox mbokk a ngi ci saraxe ngi ci ah? kii nu te eh, jubale ay nit ci mu ngi ci eh, toppatoo say waajur eh, rafetal jëmale ci say waajur mu ngi ci biir maanaa su ñu waxee birru rekk ismun jaamiun li kulli xeyr dégg mu ne lay si déet al birru mbaax wàlla walla lislaam an yu an wàllu ngeen di jubal wujuhakum seen xar kanam fi salaat ci julli kese kese kese dede do lu julli rek kese kese kese te do wax lu bax do do ko def do dimbali nit ah defal nit lu ay nit Ah julli du du du julli du l'islam. أن تولوا نجين جبل وجوهكم سين خركنا قبل المشرق ها تبقوا مشرق بنكو والمغرب ولا سو دنج نزل آية بواتنا ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك آية بدفن يوم دي دلو يهودي سين كادو dañu yaakaar ne ñoom l'islam mooy julli gi ñu julli rek doy na dugg lislaam jarul ñu dugg l'islam yàlla nee na leen laysal birru an tuwallu wujuhakum qibla al wal maghrib walakin li fi ne al birr al birra wa kay walakin al birr man amana billahi xam nga mu doon man amana billahi ki nga xam ne gëm na billaay ci yàlla wal yawmil aaxir mu gës mu gëm bés pénc wal malaaykati mu gëm malaaka yi wal kitaabi mu gëm téere yaa ni wal alkutub muy téere yi yàlla wàcce woon yépp mu gën gëm gëm leen wan nabiyiina mu gëm yonent yi wa aatal maala mu joxe alalam ala hubbihi ànd ak sopp ko aatal la ala bii mu joxe alal bi mu koy joxe moo ko gën a yittewoo ki mu koy jox akay hmm? loolu mooy bir lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuxibuun du ngeen am lislaam du ngeen am mbaax du ngeen am yiw du ngeen am tiyaab du ngeen dem ajan xataa tunfiqu mbatee ngeen dundale ngeen dépensé mimma tuxibuuna li ngeen gën a bëgg nit suy joxe dafay joxe dangay joxe lu baax hmm? waaye bëgg joxe mbubb ubbi armoire bi ba seet ba xool euh, euh, yére boo xam ne sax dafa paal nga ne ko xaaral ma joxe ko déedéet yàlla ne du du loolu jëlal jasineer bi nga xam ne benn sologoo ko wala benn yoon nga ko sol wala bi nga ko solee ñépp nee na sa yére yépp bii moo la gën a jàpp nga jël ko joxe ko loolu jafe na de waaye waaye seet loo xam ne moom moo gën a yées ci li nga am nga joxe ko lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun moo tax wa aatal la ngeen joxe alal ala hubbihi ci joxe ko jamono ji nga xam ne yaa ko gën a soxla ki nga ko jox ah yoroo lu dul

ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا بمكوي جوخي كات من انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لولا جافي آه. لولا جافي كون وآتى المال مجوخي ألال ala hubbi ànd ak sopp ko bi mu ko jox ñan la ko jox zawil qurba ay bokkam jegeñaaleem ñooñ ñooy priorité mu jox leen wal yataama mu jox ko jirim yi wal masaakiin ak miskin yi wabni sabil ak waa joo xam ne dafa tukki nekk ci yoon am jafe-jafe nga war ko ko jox dégg nga wa fi riqaab ak ñi nga xam ne ay jaam lañu ah, wa fi wa ak ñi nga xam ne dañu ñëw di sàkku sàkku di laaj koo xam ne dafa ñëw ah man di dara newul kër ga wàllu lu waay am xam kooku mu ngi laaj nga jox ko ko ak kan wa fi riqaab ak ñi nga xamee ay jaam lañu te ñëw nañ ci seen sàng ñu ne ma dama bëgg a jot sama bopp ñu ne ko indi téeméeri junni nga commencé di dem liggéey di ko verser kooku nañ ko jox ci as bu dee azaka dañ ko koy jox pour mu mën a mëttale pour pour gore sooy joxe yow tam sooy sooy sooy sooy saraxe waaye walla ngay def njëkk waa ji tollu foofu jëlal ci alal ji nga jox ko kon mu mën a ki tàll kii bi tàng tàng na waa aqaama salaat mu saxal julli wa aata zakat mu joxe azaka almafruud boo xam ne dañ ko faratal ci jaam yi wa ma qablahu ak li ko jiitu fi tatawu ci coobare coobare wu ok ok dégg ak ñi nga xamee dañuy matal bi ahdihim seen kóllëre isa ahadullah suñ fekkee ne kóllërente ne ak borom bi subhanahu wa taala wan naa si wàlla ñu kóllërente ak nit ñi wa saabiriina ak ñi nga xam ne dañuy muñ fil yi ci tartar yi mooy suñu amee ñu daldi muñ wa darra yi ñu ngi muñ ci lor yi mooy bi nga xamee ne feebar nañu ñu daldi muñ wa xiinal baas yi ci waxtu guerre tartaru guerre fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi ñuy jihaad itam li lay mar ak xiif ak coono bi nekk ci jihaad nga koy muñ léegi-léeg ñu duma la léegi-léeg nga duma waate léegi-léeg ñu gaañ la léegi nga gaañaate ci coono googu ngay nga ngay ngay muñ nga nga saxoo muñ wulaayika ñi nga xamee ne meloka melow melowoon melowoon nañu melokaan woowu allazina mooy gaa nga xam ne sadaqu dëggal nañu imaanum seen gëm aw iddia al walla woote yiw woote mbaax wa ulaayka ñooñu humul muttaquuna ñoom ñooy woy ragal yàlla yi piir wax jooju jeex yàlla ne yaa ayuha alladina eey yéen ñi gëm yàlla kutiba faratal nañu aleykum ci yéen alqita alqisaasu fayu dégg nga wax yàlla farataal na aleykum ci yéen alqisaasu fayu fayu fil qatla ci rey ci crime rey dégg alxur bil xurri dégg gor su reyee gor nañ ko rey wal abdu jaam su reyee bil abdi ci jaam nañ ko reyaat wal unsa jigéen su reyee jigéen nañ ko reyaat ah? fa man ufiya lahu képp koo xam ne jéggal nañ lahu ñeel ko min axiihi ci mbokkam moo xam ne dafa rey nit ñu war a ko waroon ko rey ñii moom deret ji nee nañ baal nañ ko ko buñ ko rey shey un ci dara pour ñu bàyyi alxisaas xisaas bi ñu bàyyi fayu hmm? ñu bale na bu booba bu booba fa tibaun bi maarufin ki bale na laaj na topp deretam bil maarufi ci njëkk comme que bale yaa wax ne waa ji buñ ko rey man baal naa ko bu buñ ko rey waaye nag su réyul dafa war a def diya suñ ko réyul dafa war a def diya de dédommagé su ko defee nag yow mi nga xam ne da nga bale fa tibaa un na nga topp sa deret bil maaruuf ci njekk bi ihsaanin ni mu gën a rafete moom itam bu ma am alal boo xam ne téye ko ba gaa yi di ñëw di ko laaj dégg nga su amee na ñëw joxe wax wax ju rafet ذلك لولو تخفيف من ربكم لولو آه، جابندال لا اويفال من ربكم بوتوك سين بروم ورحمه يرمندل بكم تي يين حيث وصى في ذلك ها آه، يالا ياتالنا لولو منون باي رك ها آه، منون باي كو ري نيت ني ري لا رك ميم سون لا بالي ني ري لا waaye yàlla defal na la ci porte de sortie boo xam ne suñ la nga war joxe diya ñu bañ la rey loolu tax fiifun la waaw wa rahmatun ak yërmande la dégg nga xam ni tada képp koo xam ne dangaa jalgati jalgati mooy bale nañu ne nañu bale nañu masalaan ñu dem rey ku ñu baaloon dégg nga wax ñun ñoo bokk ndey ak baay ay góor lañu ñu rey suñu fereer walla ñu rey suñu baay ñu waroon ko rey kenn ci yéen ne man de bale na kenn dootu ko rey léegi dafay joxe diya léegi mu ñuy joxe diya man ma jaar fale rey waa ji jalgati na akay ah, jalgati na tooñ naa loolu ma tax yàlla ne wa man itada képp koo xam ne jalgati na ba dem rey koo xam ne dañ ko baloon walla rey mbokkam walla nga dem rey fereeram ah ne ko comme que moom moo ko rey baal baal nañ ko nga taseeg fereeram walla euh, sëram walla yu mel noonu nga jër fayu rey fa lahu ñeel na kooku azabun mbugal boo xam ne alimun bu metti dégg nga kum ñeel na leen fil si ci fayu xayaatun بقاء عظيم ولكم في القصاص حياته ولكم نيلنا لين في القصاص تيو فيو حياة دندو نيخ يا أولي الألبابيين بروم خل su fekkee ne ku dagg loxo jàmbur ñu dagg sa loxo ku damm baaraam jàmbur ñu damm sa baaraam su dagg nopp nyuda ñu dab suku sa nopp su ku bënn bë ki bëtu jaambur ñu dindi sa bët su ku ku ku ku ku ñu sa bëñ ku rey ñu rey la ku sàcc sa loxo ah wala kum fil qisaasi xayaatu kon da ngeen dund dund gu neex xam nga lu ak loo ma def du ma jël ngànnaay mukk jëmale ko ci yow parce que xam naa ne lu la def rek sama bopp laa ko def parce que danañ ko fayu ci man su ma tojee sa bopp xam nañu ne danañ toj sama bopp su ma la jàmmee paaka danañ natt loolu la ko yow sama sama sama sama sama sama yaram sama der sa yaram ngay protéger parce que loo ma def rek danañ ko defaat kon nu ñu def dañu am dund goo xam ne gu neex parce kenn ku nekk yaay protection sa morom dégg nga wax ji ah waa kay ko defee jamono àdduna dafay neex parce que soo bàyyi tegee fi sa sa alal kenn du ko laal soo doon jaay ba waxtu yu jot da ngay wàcc sa rideau rek dem julli julli ji parce que man damay xam ne su ma fa duggee sàcc danañ dàgg sama danañ dàgg sama sama loxo kon jarul jarul denc dem koy teg ci mbedd mi heure boo gémmantu nelaw bàyyi fa sa sa sa sa sa bagage kenn du ko laal loo mu tooñ tooñ du ñeme wu ma wu ma la fetel ñeme ma la dóor jaasi nii yet nii kii parce que xam naa ne lu ma la def dañuy dem ci juge bi moom itam ñu def ma lu lu lu toll noonu lu mel noonu kon su ko defee walakum fil qiyaas xayaatun yaa ulil albaab moo tax gis nga agression bi ñu sonnal nit ñi léegi sax corona di jëlee na fi agression defe naa waaw temps yi moom corona corona moo moo àgg waaw corona daal moom moo teg teg ndawal temps yi waaw

waaw kon fa tabaarakallaahu su amoon rek nit ñi am jàmm waaye léegi soo ko bëggee bëggee def droit de l'hommiste yi ñoom ñooy ñëw ne droit de l'homme imposer leen droit de l'homme droit de l'homme ku rey nit waruñ ko rey ku dëkk pourquoi xanaa droit de l'homme moom ki dund rek la topp waaye ki ñu rey moom amatul droit de l'homme ah ko xamne dañ dañ ko ray ñu ne ki ko ray dañ ko wara ray ñu ne noonu droit de l'homme tere na tel tel ki de nak mom ana mom bokkutul ñu xamne ne nañ seen seen seen atte bi dafa dafa deung de até bu jubul até bu jubul ay wal man lam yahkum bima anzalallah ku até wul li yàlla ci li yàlla tëral fa ulaayka fasiqun humul kafirun هم النافع atte boo xam ne soo ko attee ëllëg borom bi subhanahu wa taala dana ko attewaat dana ko attewaat alaysa allahu bi ahkamin hakimin kon su ko defee wala kum ñeel na leen fil qisaasi ci fayu xayaatun dund goo xam ne bu sax te dund goo xam ne buy des bu neex yaa ulil albaab yéen borom xel yi laallakum ngir yéen tattaquuna ngeen ragal alqatle rey mu xaafatan ngir ragal alqawadi fayu yàlla ne ba faratal nañu aleykum ci yéen ida xadara ndeem teew na na sëpp na ahadukum kenn ci yéen dee intarax ndeem bàyyi na xayran alal alwasiyatu na dénkaane dégg ci kan lay dénkaane lil waalidayni ñaari waajuram yi wal aqrabiina ak jege yi bil maaruufi ci njëkk dégg xaqan loolu de yéy na alal muttaqiina ci way ragal yàlla yi waaye nag wa haza mansuuxun bi aayatil miras aaya bi dañ ko folli ndax aaya miras moko ko folli ah ah waaw testament bi léegi dañ ko folli mansuux la aay bale wa ulul arham aay aay miras bi moom moo folli aay bi danañ ko jàng waaye dañ ko atteew dañ ko appliqué ndax dañ ko folli parce que léegi alquran wax na seen cër ndey ak baay ak jege na jege ñaale ñooñu alquran wax na seen cër lan lan mooy seen cër ci alal ki dee jeex na kon jarul jë dénkaane Hmm? fa man baddalahu fa man baddalahu baadama samiahu fa innama ismuhu ala alladina yubaddiluunahu fa man baddalahu képp koo xam ne dénkaana dénkaane na ki nga dénkaane ki nga dénk mu soppi ndénkaane fa innama xamal ismuhu bakkaaram alal lazina waral na gaa yi nga xam ne yu baddiluunahu ñoom ñoo wëtti ndénkaane ñoom ñoo changé ndénkaane bi testament bi ñoo ko changé su ci duma waree yàlla dafay duma ki changé ndénkaane bi ku changé testament bi inna allah yàlla ah samiun aji dégg la li waa ji wax bi muy dee waaye alimun aji xam la bi waa ji dee li ñu def ci ginnaawam yàlla ne fa man xaafa ku ragal min muusin ci ki ñuy dénk janafan jeng aw isman walla bakkaar fa aslaha mu yéwénal baynahum seen diggante fala isma aley bakkaar aley di ko waral inna allaah yàlla xafuurun jéggalaakoon la raxiimun yërëmaakoon la hmm? waaw kay maanaam dégg nga dénkaane nga ne man kat su ma dee aadama Cissé mii da dénk naa ko su ma dee na nga def ni sama alal na nga def ni sama alal na nga def ni sama alal nga dem ba mu yàgg mu biir la walla nga am information ci aadam yow kan nga dénk sa man dénkaane na képp koo xam ne xam na li ma dénkaane sama ginnaaw na dem ci Adama Cissé ñu ne Adama Cissé nga dénk sa àll sa dénkaane xanaa xama kooku biñ ko dénkee kii ko waa ji dee woon moom moo jël te ay teereem jaay ko def ni def nga am ci moom information ba nga dem waat ci moom jëlaat kayit yi nga dénkaane woon ci moom defaraat ma ne ko bàyyi naa dénkaane bi fala Ismaali parce que bi mu dénkaane xamul woon koy aadam dafa xamoon ne ku yaakaar ne ku yiw la ku baax la ku déggu la ku maandu la mu dénk ko ginnaaw gi nag mu am information am na lu ñu ko dénkoon mu luubal am na ay dénkaane yu ñu ko joxoon ah deful ko ni mu waree léegi nag ah mu dem delluwaat ci dénkaane ko defaraat ko dégg wala mu jëlaat kayit ko defaraat ko ba nga xam ne sécuriser ko nga xam ne du ko mën a falsifier loolu yëpp fala ismaali Mm-hmm. fala isma ali inna allaha gafur rahim kon ñu teg fa suñu baaraam ba ëllëg insha allah yàlla na yàlla def ñu dégg ak topp lépp loo xam ne jub na yàlla lépp loo xam ne dégg na ci wala ñu juum ci euh, yàlla nañu yàlla jéggal bi jaay seydi sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu